Amat aussi li nga xamantene moy euh, élection yu libre transparente 2012 ñu am ko nga wax ñaari mbir nga ni euh, ñom ñu taxaw wane courage euh, opposition bi wane aussi sagesse mais jamono ji dafa melni bu nekké sagesse amna courage dafa manké euh, Cheikh Bamba Dièye bu ñu gisoon mu taxoon boppam fële ca euh, buntu assemblée nationale ci digënté dafa melni ni assagi euh, ñeneen ñi nga xamanté ñu néwon ci opposition aussi dafa melni dañu xawa adopter ben position posture bu pusillanime lan moko expliquer expliqué Macky Sall moo naqadi jàmmar lool wala contexte yi ñoo bokkul ba nit ñi gisatuñu taxway bi nga xamanté moy bi wax opposant non en réalité je pense que ni on s'adapte en tout cas man si sam li ma concerné mm-hmm. Euh, c'est vrai que ni ay at yokuna ci et tey jii la am préoccupation pour euh, le Sénégal ay solution mais de vraies solutions ay solution qui xamé ni day tabax jamm day tabax stabilité parce que ak nous mën ti wax suñu jamm amuñu stabilité amuñu justice on ne peut pas parler de développement donc daf di un préalable essentiel te Pape ma toll at ma je pense que ni ma première préoccupation mooy nan lay fexe ba ñu mën les 18 millions de Sénégalais autour de quoi de la vérité de l'état de droit et de la justice dina am ay jamono yoo xamee ni euh, lay war ci combat moy taxaw ci mbedd et même jamono ya nga xamé ni ci j'avais aussi toujours le souci mm-hmm. de le faire avec intelligence j'avais aussi le souci de le faire en essayant de protéger de mm-hmm. me protéger au maximum de ce que je pouvais mm-hmm. les masses ci li nga la furie de l'État et l'état d'injustice aussi euh, danti démocratie adapté je pense que à mon avis l'histoire histoire récente mhm. j'ai été acteur et acteur de premier plan avec beaucoup plus d'efficacité qu'en 2011 mhm. ci li nga les événements de juin 2021 mhm. parce que le M2D terme de référence yi d'accord man ak Bougane Gueye ak euh, Moustapha mhm. ñoy ñatt ñi ko a Cheikh si lolu lañu and pour créer ce mouvement politique amalgame d'éléments de la société civile de partis politiques d'individualité pour ñu mëna taxaw jamarlo ak li nga xam mom lañu injustice situation Ousmane Sonko. Mhm. ba defal l'histoire ne se répète pas souvent de la même manière mmh. di nga ni jamono autant l'opposition des qui ci manière bi état du euh, autant l'état aussi apprend à utiliser des moyens légaux et parfois même illégaux mmh. pour pouvoir réaliser son objectif yi qui ne sont pas démocratiques et qui ne sont pas dans l'intérêt du Sénégal ci sama gis-gisu bopp tey jii fii mu toll nii su souci bi gën a rëy non seulement je reste dans ma ligne mais ñaareel ba xam nga ni mon keroog ba mu wootee dialogue ba ba nga xamee ni gor yëpp taxaw nañu mhm. jàpp naa ni jël naa sumay responsabilité wax ak nag moom wax joo xamee ni ku ko digg di nga xamee ni mënuñoo bañ a def leneen lu dul jaar ci yoon wi ñaareel ba aussi wax nag moom wax joo xamee ni xam na ni réew mi ay nit yu libre ñoo fi nekk ay boroomi xel ñoo fi nekk ay ñu am la ñoo fi nekk ak ay patriotes et c'est pour cela que je pense que ni dans chaque dimension de la vie de l'individu dina am un combat qui est le plus li on ne peut pas avoir tout le temps 20 ans et on ne peut pas avoir euh, tout le temps 40 ans ou en plus 50 ans dans le cheminement de l'individu li ci a la rectitude et la constance ci mhm. mais chaque année d'expérience doit être valorisée par une sagesse et une maîtrise de ce que li fait def ba éléments j'en ai profité pour analyser le pays donner des livres faire des des réflexions pour voir quelle est ma vision de l'État non la compte tenu de l'expérience et de la dureté de cette expérience là en réalité les solutions réelles je pense qu'un homme politique en plus du combat pour la légalité, la justice, l'état de droit. C'est aussi une usine pour euh, inventer le futur de notre pays et aussi donner des pistes. au yaa ngi wax legui dialogue euh, bi nga xamanteni euh, participer won nga si yëgti woon nga si effectivement kàddu yu am solo ñu bëri rafetlu ko doon ko sax partager ci réseaux sociaux mais dialogue bi fi bi fi jiitu won aussi euh, pratiquement même discours bi lone est-ce que avec du recul do regretter le fait que ngay participer ci dialogue bo xamanteni ki ngay waxal di nga wax de mais mom da fay melni delu sax dul déglu que du jël mukk en compte li nga xamanteni moy soit remarque leur revendication wala lu mu munti doon moom day def li nga xamanteni moy lu mu bëgg def moy walum politique ak ay dil mais est-ce que am nañu droit renoncer amuñu droit renoncer on doit être toujours dañoo war a pare pour suñu réew donte sax ki nga xamee ni moom la ñuy waxal déggul lu ñuy wax wala boog am na leneen lu mu làq ci biir dialogue bi ndax pour pourtant de comme ni nga ko rappelé ca premier dialogue ba wax naa leen fa wax joo xam ne daf naa ne ba ma ko waxee ba pare amul keneen ku sañ wax président Macky Sall lu toll noonu ci ay vérité effectivement deuxième dialogue bi ko wootee. bima ma ni premier dialogue bi dara amu ci comme résultat dama lànk ni dew ma. participer ma ci deuxième dialogue mais faut reconnaître aussi que ni troisième dialogue bi. daf ñu fekk ci contexte bo xamé ni. ci histoire politique du Sénégal mosuñoo am bu ni mel. mosuñoo yegg ci confrontation bo xamé ni dem na ba nga xamé ni li nga xamé moy essentiel ci réew mi. muy la stabilité de l'État moy sécurité sénégalais yi muy li nga xamné moy suñu avenir mo suñu won am euh, situation bo xamné on a frôlé la catastrophe comme on l'a frôlé en conséquence de quoi japp naa ni si jamono yoy sénégalais yi li tax malgré que ñu bare d'accord ñu ci dialogue bi terewul li ëpp ci réew mi bi dialogue bi déclenché woo ñoom ñëpp ñu ngi seen kanamu télévision nous sommes seen kanamu radio, ñu ngi ci parce que les gens aussi les citoyens et les sénégalais mmh. ils sont préoccupés par le pays Madame fi réew nous jëm ñii di nous nan la nous mmh. nan la nous c'était un moment historique Sénégal après la c'est la répétition de oui oui oui oui oui monsieur le président. tu as raison tu as raison monsieur le président monsieur le président il était important. Mhm. que moi, je ci réew mi. Mhm. ñoo ni ci nangu nañu responsabilité de président de la république mais assumé mais duñu nangu mukk ñu yeew leen ci ay dynamique yoo xam ne amul intérêt Sénégal. <laughs> di fàttali rek euh, suñu invité tey jii ci jotaayu FMD mooy euh, le président Cheikh euh, Bamba Dièye papa nekkoon Cheikh Abdoulaye Dièye qu'il gu am solo ñun ba ñuy nekk gu ne ñi ngi fàttali ko bu baax baax campagne am ak Allahu wahidun nit koo xamante ne wax Sénégal da perdre perdre nit ko am valeur mais malheureusement duñ ko jàngale souvent ñun sàcckat yeeg détourneur <laughs> ne dañuy public comme ni ñu koy tuddee rek. bien sûr ñoom dañuy fàttali. walaay pap, mais je yaa bind si sa benn téere. waaw waaw dëkk boo xam dañuy fan. sàcc waaw nee naa le Sénégal gii. et c'est ça qui fait très mal pap. Euh, su ma waxee sama bopp sax ça pose problème mais je prends yo, tu es plus jeune que moi hmm. mais dans si sa dund gu ndaw gii ñaata nga fi dund comme forme d'injustice juste parce que tu as dit ce que tu pensais Madame, parce que tu wax nga li nga xam nga Martin Luther King dafa wax ni ni àddina gi ay mhm. déclencher guerre tu mhm. waxal li nga gëm rek tu yo li nga gëm am problème mhm. te pap bu en 2017 li ma dénoncé dénoncé sama livre Mo ñu effectivement yenn si juge du ñu nangu jël seen responsabilité yenn ci haut fonctionnaire yi du ñu nangu jël seen responsabilité ils préfèrent être dans la compromission te loolu jafe-jafe la mhm. bëgg lu yomb moo tax nit ñi du nangu assumer seen combat mhm. nit ñemew ñu toog si ta naaj bu tàng wi mhm. yow xam nga ni xam naa ni amul ku ma ëpp contribution ci victoire 2012 bi et déjà en 2014 ba démission jafe laa leen de laa leen fa bàyyi et boobeeg léegi ça fait presque 10 ans donc mais fini tout toll ak bëgg lu yomb bon muy france ak faral tu 2017. <laughs> mais mais y a pire encore. oui prépare-toi à souffrir. Mm-hmm. effectivement il faut que sénégalais yu xam ni bañkat yi nekk ci réew mi ils vivent un enfer un enfer boo xamee ni sous toutes les formes même lenn ci journalistes yi bu ñu lay wax dana la tojoo fi dara parce que yow sàcculoo amuloo looy toj parce que li gars yi di tojee musiba naaru laay la ci réew mi si vous ñu gagné, la mais tout le temps parce que yow fi pour dilapider les parce que option la ce n'est pas parce qu'on te l'a imposé parce que vous avez nga muus nga fi gars que di jaar dit am vous avez nga que man dit c'est qu'on l'a choisi librement mais en retour vous avez am que Sénégal sacrifié pour ce pays mais en retour qu'est-ce que tu reçois comme information il faut que sénégalais yi xam ni dañoo soxla surtout si jamono yi le Sénégal te a rek tax te vécu ak son passé parce qu'il y a beaucoup de faux dévots dans l'affaire il ils méritent l'appui et le soutien des citoyens reconnaissance non même pas reconnaissance parce qu'on le fait pour nous-mêmes mais jàppale parce que tey jii tey bu ma jëlee benn cas rek le parrainage comme ni ko gars yi sampee ñëpp xam nañ ni c'est un moyen habile boo xamee ni teg nañ ko pour bloquer nit ñi mais si les sénégalais jóguñu fekk ko mel na Cheikh Bamba Dièye nga xamee ni taxawam wér na ni la mënul jënd parrainage wala amu ko bokk wér na ni la yenn sa ay sax mooy loolu parce que boo bëggee jub dunde li la say wërsëg boko bolé booleeg sa njaboot booleeg ak say am di jam say mbok mais yow ñëpp yam effectivement li fi dess gore mo fi nek mhm. ak bëgg sa réew mais jamono yoy ñu mel ñooñu waxuma rek sama jëm ji mais képp ku mel noonu ci réew mi jot na pour sénégalais yi si boppam mhm. jóg parce que s'ils sont 7 millions au minimum d'électeurs war na ku nekk jog ni man de dina tànn kenn koo xamee ni ngir fàttaliku wala ngir dooleel ko wala ngir gën ko yokk fit ci xeex bi muy xeex. ma jox ko sama parrainage parce que noonu la ñuy xeexee et à tous les niveaux. li nga xam ne moo nekk suñu kanam et nous sommes un pays comme le Sénégal. Mhm. où Cheikh Ahmadou Bamba pour ne pas citer un exemple. Mhm. ou Sidi Hadj Malik ñooñu face à la furie de l'empire colonial. Mhm. mais xam-xam la ñu teg. effectivement xam-xam la ñu teg te est-ce que tu as vu les photos de 1918 de Serigne Touba wala est-ce que gis nga photo Sidi Malik 1904 villa en 1900 village bi doy war ci Sénégal tay ji moko ko de a doy war te góor gu tedd gogou mënul wax ni ni dafa don wo nit ñi ci xaliss dedet Sidi malik ci ci ci

kenn ci gaayam yi bëgg lu yomb ba dugal ci turu doomam. ba mu ca jotee daf ko licencier. on a di eu des hommes justes. li ñu dal ci Cheikh Anta Diop. ak yéene ju rëy ji mu amoon ci Sénégal dalu ñu ko sax ci dal nañu sax ci euh, Landing Savané. parce que soo doo ko xaleele. en un moment donné de l'histoire politique du Sénégal il a symbolisé tout le refus que un homme de vertu.